Euh, kilifa gi ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay soxna. tur bi naka la. man maa ngi tudd Mouhamadou mais ñu ngi may woowee Zarko quoi sama noo Zarko lan nga ci euh, seex mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. ah wax dëgg yàlla Pape Seex mu fi bàyyeekoo de suñu waay la ñun ñii ñëpp ndax kenn la suñu nit man mun naa woon sax man maa ko gënoon a sonal man ci digg benn baraag gi ndax ëru bu Moussa na génn moo loon noonu dinaa ko wax la nga xam te ne da koy day dagg xol bi sax te teewul du mer daf dara képp ku mu gis ku nekk day def ni boppam. booy bu yaru la booy bu jox doomu aadama cër la ku wàccee boppam la nit mosu ko wax dara ba mu mer wala nga koy wax dara sax musul xuloo musul xeex ba nu dëkkee ba mu yoroo ba nu mu màggee ba nu mu toll nii kenn mosu koo àtte wax dëgg yàlla su may wax si moom damay wax la nga xamante ni man moom laa fekkee ndax maa ko gis ko suñu kër yi ñoo jàkkaarloo booy yor la booy bu jox doomu aadama cër la képp ku mu gis ku nekk day def ni boppam lu naan nit nit ay nit ay garabam barke Serigne Fallou Mbacke man ci moom laa koy seen ndax nit nga xamante ne du mer doo gis mu tooñ du dugg ci lu yoonam nekkul du jëw foo ko fekk mu ngi ci kuréelu xasida yi nga ñee taxoon ñëpp ay xaritam lañ ci kuréel gii la bokkoon kuréelu xarmatul xadim bii la bokkoon saa foo ko fekk day musaan buy woy sax ay xasida lay fooy di ko woyantoo te àlla moom du ko booleeg doomu aadama képp ku mu gis ku nekk def na la boppam kon su may seere si moom damay seere si moom laa xamante ne moom laa fekkee te loolu laa dund ak moom benn man damay wax ci man man yëpp naa yëpp gu tolli moo la musuma musuma ko wax dara sax mu teg ci baat yooyu noonu te lépp ma ko mos a wax lu nekk barke Serigne Fallou Mbacke mu nekk mu nekk da koy def te da koy def ak yërmande te yërmande googu noonu moo ne ci moom ba ni mu demee képp ku mu gis ku nekk moo loon da koy def ni boppam képp ku mun a dimbal da koy dimbale bu yoroon cent franc ñeme na la koo jox te toog barke Serigne Fallou Mbacke lii laa xam ci moom. naka rek ngeen yëgee que ne ne Cheikh daal dinay génn àdduna. waaw loolu man da ñaari élève sax ñoo daw ci si suba gi ay ñaari jigéen lañ ñu ma fekk fi ma toog ci buntu kër yi ba ñëwee ñu ne ma ñu ne Zarko dana la soxloon man leen mbaa jàmm la man dama la soxloon moo la ma ñëw taxaw ñu ne ma ñun ne dañoo àndoon ak suñu waa classe ñëpp dem géej waaw dañoo demoon di sang Pape Cheikh dafa def si géej gi moo benn ndaw si léegi dañoo bëggoon ñu dugg si biir kër nga wax ñu ko paa bi ma leen wax dëgg yàlla loolu nekk lu may mun ndax ku toll ne Pape Cheikh ak paa bi nu ko paa bi bëggee waa kër gi nu ko bëggee Pape Cheikh du tëdd si la te du tëdd tant que tëdd waa kër gi duñ tëdd loolu dina ma dis sura pour man ma dugg di ko wax waa kër gi ay une heure ma ko wax toog naa ba trois heures mënu ma ko wax waa kër gi maa ngi toog fi maa xale jigéen ñi jooy ma dugg leen suñu biir kër ndax bëgguma kenn comprendre après ba ma toogee yeddaal sama bopp waxtaan ak sama xel si laa ne léegi man lu lii lii solution dañuy ànd yéen ñu dem kër chef de comme moom moom moom koñ bi mun dem ñu expliqué ko ko li ngeen ma expliqué ko moom bu munee def déplacement pour ñu dugg si biir kër gi yeggee ko waa kër gi man lool dina doon lu ma gën a neex mais bu dee man mii rek man loolu mënu ma ko léegi laata laataa may ànd seera quartier bi du ñëw am yenn élèves ñëw ba dugg si biir kër gi ba wax ko ay jigéen ndeysaan man fële rek laa toll dégg yu koy waaye bëgguma mu jóge sama làmmiñ di jëm si fa ndax man cër gu ma am ci waa kër gi ak cër gu am ci waa kër gi bëgguma leen teg leen la xam di leen ni gaañ wax dëgg yàlla. jot nañu gis ki nga xamante ne ni moo di seex ci euh, géej gi euh, yow jot nga dem bi nga xamante ne moom feeñ na. trois jours trois jours laa la wax ñu ngi fanaan ci géej gi géejoo géej dem ne palazzo plage dem nañ fa chaque jour dañuy def moo loolu noonu gi nga booy nga seen ñëpp chaque jour dañuy def trois bolo ñuy dem Ngor ñuy dem Wakaam ñuy dem Yoff chaque jour ñuy daje ba démb démb démb ci géej gi lañ mujj fanaan dem ba côté géej gi ba côté moo loolu tuwaan pël bi ay fajar cinq heures du matin ba ñuy tourné noonu ndaysaan ba ñu ñëwee sax si laa fekk seen journaliste bii nii ji laay faal waaw ba ñu fekk première wax dëgg yàlla moom lañ fekk ak ñaari ñaari bërër yu doon entraîné nag affaire yooyu noonu xam nga bañ ñëwee bañ egsee ñu egsee ndaw ñu ñëpp bañ ñëwee xam nga rek yaa ma gën a xam ñu ko fekkee wax dëgg yàlla neexuñu quoi mais lu si lu si mborom bi dogal si doomu aadama rek allah kulli al dem doomu aadama mënu si dara loolu si mborom bi namoon ci moom te loolu day am par force la nit du romb bësam. d'accord ndax jot nga gis sa rakk ji bi nga xamante ni daal dina génn ci géej gi. wax dëgg yàlla gis naa ko wax dëgg yàlla gis naa ko xool naa ko mais dama ko ñimantal ndax xam naa ni moo jàmbaar dem na góor dem na ndax ñaari góor a ko jur mu juru ñetteel leen kon dem na ci dëggu daal wax dëgg yàlla te fu mu jëm man gëm naa ni mooy loolu na lépp lu mu fa bëgg da koy am ndax loolu war na ko ngor fu ak feer ak jom mi ngi ci moom ak ngor ma loolu laa gis ci moom te gëm naa ni fépp fu mu dem fu nekk mooy loolu dafa sonn barki Serigne Fallou Mbacke ma yaakaar. d'accord ñu gis ne ne nit bu daal di labee ci géej bu génnee yaramam bi dafay daal di yàqu ndax bi nga xoolee yaramu seex lan nga gis. waaw wax dëgg yàlla mooy loolu xaw na am ay xoos kanam gi quoi ndax xam naa nu mu labee noonu ak nu ko ndox mi di poussé xam nga rek yaa ma gën a xam mais taxu ko taxul yàqu noonu quoi taxul yàqu yàqu ba tax ñu naan yàqu mais xaw na xoosu quoi kanam gi bu dee dëgg rek a neex yàlla. Mhm. non billaay dafa daw ndax dama ko ñiimantal ndax tey jii nii dama koy nat sam bopp bu doon mën a barki Serigne Fallou Mbacke ñi mantal googu laa am ci moom moo tax nangoo ma ko sax xool xool bu bëri dama ko xool ak déplacé dem sama yoon. Hmm. non góor gu dëggoo ngi noonu depuis ba affaire bi amee ba léegi mool mosuma gis rongo ñam toog te man gëm naa ne mi ngi jooy jooyu xool am na lu ko naqari trop te mu ngi defal ñeneen ñi man gis naa loolu ci moom wax dëgg yàlla lu bu naan réel góor yàlla moom mooy réel góor yàlla. ndax lu toll ni doom nu mu neexee ci xool mu doon sa taaw nga seen ko nii mu leer ni kii ngay seen ni day dem te duñ dikkaat te boobu ak léegi yaay defal doomu aadama yi kon moom moo loon góor yàlla la wax dëgg yàlla. tey lan ngay lancé message jëmale ko ci askan bi ndax gis nañu géej yi li muy yóbbu fan yi doon na ay bakkan yoo xamante ni yu takku la yéen cas bi ñëw rek daal di dal ci seen kaw ngeen am ci kenn koo xam ne daal dinay ñàkk bakkanam ñu tollu ci li xam ne moo di jamonoy tàngaay te xale yëpp dañuy bàbbeeku di dem ci géej. non man lu may message bi may lancé daal mooy képp kii ndaw te na man ngir yàlla yénti bi boo demee géej di kenn mënul tere kenn dem géej mais booy dem du sango na nga fa fekk ay maître nageur amul ay maître nageur nga la na bul sàmm sa bopp ci géej gi ne géej amul bànqaas amul foo jafandu amul foo jàppandu jeunes yi xamante ni samay morom nag laay waxal ngir yàlla yenente bi dama leen koo ñaan ngir jëm Serigne Touba képp ku si mën a toog sa kër toog sa kër wala képp kuy sangooti géej demal fa nga xamante ne leer na yàlla fi am na sécurité boo fa demee boo dé duggoon fii ak fël nit mun na laa jëli man loolu laay ñaan bépp jeune maa nga xamante ne toll nga ni man te da dem place ak yooyu noonu man loolu la laa am message may lancé. jot ngeen a jot ci koor bi wala. waaw jot nañ ci moom lañu bëgg a dem nii robi ko Touba nii Daaru waaw. waaw ñuy waaw merci waay. kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay bu baax. tur naka la. Malick laa tudd. Malick lan nga ci Cheikh mi nga xam ne tey moom moo fi daal di bàyyeekoo. waa Cheikh daal nit ku baax sama xarit la woon sama xarit sama wëllare ñoo doon ànd suba ak ngoon guddeeg bëccëg sama xarit la woon ndeysaan nit ku baax bëgg nit ki bëggul kenn mer billaahi lu mu am bokkoo ñun barke Seydina Muhammad nit ku baax a ngi noonu Pape Cheikh barke alxuraan ko yéene ñëpp jàmm billaahi wallaahi wa taalaay moo koy état ni moom ba dëgg fa yàlla ñun moom lépp affaire bi soo xamee boo xamul metti na trop trop trop trop trop baax dem na waaw mais mais lu yàlla bëgg rek voilà ñun ñun daal nañ jël lépp te ko te ko su loxoy yàlla xëy na yàlla ni nii la ko bëggee woon mu ne mu ne nañ ko defee noonu mais métti na trop. kon naka nga yëgee rek ne Cheikh daal dinay lab ci géej gi ba daal di ñàkk ba kanam waaw Cheikh nag ñu ñaan ñoo àndoon bëgg dem si guddi ñu ñaan ñoo ànd ma xëy. sama booy woo ma ne ma seex moo wàññeeku man leen yéen bàyyi seen affaire caaxaan yi ngeen def seen mbala ngeen def man man bi ma waxee ni seex dafa mujjee wàññeeku ci géej gi daf ma jëlee kaw quoi ma ma ni booy yéen yéen da ngeen di caaxaan seen caaxaan yi ndax ndax seex maanaam maanaam dañoo ànd tey su bu guddi gi ma xëy ñu woo ma ne ma seex ma wàññeeku mu metti ma trop mais mais dama dégg ñu su jàmm si yàlla soxla soxlawee jàmm ñàkk mais ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla yërëm ku baax dem na nag ku bëgg nit voilà d'accord ndax bi ñi nga xamante ni daal dinañuy gis euh, kooru seex ndax jotoon nga dem ci mbir mi wala. noo man moom jotuma woon dem si place moom jot moo dem si place ba dëgg fa yàlla. yan jikko wala yan qualité moo la gën a marqué tey ci sa xarit bi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. noo Cheikh moom wax dëgg fa yàlla ni ku gëm yàlla bëgg sëriñ Saliou Mbacké Cheikh fu mu toog ngay jàng ay xas da kuréel fu mu mën di toog lu baax lay wax fu mu toll day wax si sëriñ Saliou Mbacké man kay man kay sëñ Salim Mbacke yàlla na ko teeru ci Mbacke Seydina Mouhamed bëggoon na ko trop Cheikh bëgg na ñëpp ñëpp yemale ñëpp billaay walaay wa taalaay bëgg nit barke alxuraan bul kenn meer Cheikh xëy ñu noonu la. lan nga yëg ki nga xamante ne nii moom nga àndaloon ci guddi nga daal di yeewu ñu ne la kooku daal di nay wuy ji boroomam. ah métti rek métti rek barke alxuraanu karim métti na trop trop trop ndax ndax yow nit ki ngeen ànd ci guddi gi ñu nga xëy feebar woon dara jotu ko nga xëy ñu ne la wàcc na métti na trop trop ba fi métti yam mais yàlla yàlla daal bu soxlawee rek jaam bi day ñàkk waa mooy loolu met na trop. ndax bu jigéen boobu nga xamante ni moo doon lab mu ko doon jéem a sauver jot ngeen woon xamante ak moom wala. non kooku moom wax dëgg fa yàlla man moom xamante wu woon wala xamante wu woon moom Fatou waaw. d'accord merci ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la ma saw. waaw bu baax métti na trop mais mais yàlla baax na waa yàlla baax na. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa lay fay. naka la. tur bi Sadia la mais ñu bëgg ma xamal Sadia. Aliou lan nga ci seex mi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. waaw seex seex dafa nekkoon nit bu baax man xaritam la frère am la ñoo bokk koñ bi euh, seex doon nit bu baax doon suñu rak baax yaatu fu mu ñu rom lañuy nuyu fu mu ñu rom lañuy nuyu tamit euh, jox ñu cër bi yox ñu cëru mag bi seex doon nit bu baax boo xam ne daal vraiment. Euh, fooy tudd mbaaxam moom da koy weesu moom wax dëgg waaw moom bi ñu ma yëg ne muy ngi gën na boobu may ngi doon liggéey boobu léegi maa fekk fu ma liggéey wax ma ko affaire bi ma jëlee ma kaw parce que mun moo gëm parce que avant moo avant loolu di am ne si guddi gi daje nañ fii maa moom si koñ bi fii daje nañ ñëpp mais dafa mel comme ku doon tàggatoo comme ni ko booy waxee rek ñëpp gis nañ ko. mais bi ñu xëyee daal affaire yi bettuñu daal dañoo bett trop trop sax gémmañu ko sax ba dañuy xëyee sax gémmañu ko boo xoolee sax affaire bu mu amee ñu ñëw xëy si fajar gi dem géej ak gaa yëpp di ko wër gi la ngi yenn jour boobu yendu fa di wër koor gi mais mënuñu fexe ba gis ko mais yàlla doogal na tey euh, gis nañ koor gi mais génnoon ak bakkam mais dañ koy ñaanal fu mu dem gën a ko fu mu jógee mais dafa deewee ndaw mais ñu ngi ñaan yàlla mu condé mission si àjjana incha allah loolu lañ koy ñaanal ak jour bi nga xamante ne ni mujjee nga gisante ak ki nga xam ne moo di seex mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo tey ndax jot ngeen a weccante ay kaddu wala. non non non non jotuñoo weccante kàddu sax mais dañuy romb mu nuyu ma ma fay ko ñu jaamu sante loolu loolu loolu la ñu sekoon ma ak moom ah des fois buñ dajee fenn terrain wala dajee fenn ñu toog waxtaan ni lool rek la ñu sekoon waaw mais nit bu baax la woon moom. d'après bi nga xamante ne ni guy gi mi nga xamante ne ni moom suñu journaliste la bi nga xam ne woon na famille bi ba ñu dem fekk ki nga xamante ni moo di euh, kooru seex ci euh, plage bi ndax yow jot nga dem fekkee ji wala. non non man moo jege information bi doomu géej fi laa ñëw fi laa ñëw direct fi lay ñëw direct ànd ak gars yi ñëw ñu ne booy ñëpp ànd ak gars yi ñëw mais instant bii nii ma déggee ñu ne ñu mais instant mi ngi hôpital te si booy ne kaay dem kër ga kon jarul ñu dem hôpital comme fexe comme fexe nañ ba yóbbu hôpital kon ñu dem kër ga ñu assister. jàpp si parce que ñu ñooy ay xaritam parce que nit amul lu dul mbokkam ñooy mbokkam ñooy xaritam ñu koy ñaanal nag di ko ñaanal bu baax a baax lu ñuy marqué moom bëri na billaay lu ñuy marqué moom bëri na moom amul benn problème moom amul benn problème mooy suñu rakk bu baax rek suñu rakk bu baax ak mbaaxam ak taaroom ak nu mu bëggee woon xas day suñu saaliw ba bëggoon fa xas day fonk ko foo ko daan fekk ay bara la daan sol toog si kuréel yi man loolu laa xamal man mosuma nga xam si ay caaxaan. yàlla merci beaucoup ñu ngi la koy bu baax a baax di la mosaw. merci waay waa di wax ñu ñaanal ko rek xaaral ko àjjana ok merci. ngi lay nuyu si. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax. tur bi la. man Ibrahima laa tudd. Ibrahima mi nga xam ne moom moo fi dal di jóge tey. waa seex sama gaañ la woon suñu waay la woon te nit ku baax la billaahi yan kàddu yi seede nga ñu mën a jox ci seex mi nga xam ne moom fi bàyyeekoo gannaaw ba ñu la ko jaalee ba noppi. waaw moom daal lu ñu mën a wax nit ku baax la woon te tamit alalam du ko boole kenn jot ay yàlla yi tamit daan na si dem naa billaahi naka ngeen yëgee rek ne seex daal dinay génn àdduna. waaw man moom damaa si néeg maa sama benn booy ñoo toog rek après ma jékki-jékki muy am ku mu doon waxal kooku ne ko kii moo gaañul ma kii Papa Cheikh ma ne ko looy wax nii après si laa ñëwee fii gi fekk fii gars yi di jooy nag affaire bi doon lu ma metti nag billaahi. kañ ngeen mujjee gisante yéen ñaar wala kañ ngeen mujjee déggante. moom mercredi la gaañu man maa ngi moom lundi lañ a gisante damaa damaa demoon côté boobu noonu ma tasanteeg moom foofu noonu fekk mu daa génnoon récréation après mun naa may ma foofu 100 francs waaye ma jënd fekk moom benn xaritam ñoo taxawoon mun naa may ma foofu ma jënd ndox damaa mar yooyu ne fekk fii dërëm laa yoroon sama poos ma jox ko ko nag billaahi. d'accord ki nga xam ne waxtaan nga ak moom lundi mardi ñu daal di la koy tàggee lan nga yëg. waaw loolu kay xam ne kuñ ko wax moom loolu da doo yëg dara lu dul diis ak lu metti rek ngay yëg sa xol bi yi tey lan ngay lancé message jëmale ko ci jeunes yi ñu bàyyi ci xel ci côté géej gi ndax gis nañ dañ nekk ci période tàngaay te géej gi li muy faat jamono yi ñu nokk na yoo xam ne lu sakkan la. waaw li ñuy wax rek mooy booy comme booy jàng yi rek ak même ñu jàngu ñi sax kuñ si ku si jàngul nii wala ñu dàq la paiement wala dara lii moom xam naa leçon la ci képp kuy élève moom leçon la de kuñ dàq ne la demal nga ñibbi wala demal nga andi sa fay bul si teg dara lu dul dem dem jëli ko rek fekkee dañ laa ne nga bàyyi ba suba wala lii nga toog seen kër bañ a dem fenn tàngoor bii bu tàngee tamit ak nu mu munti mel xam nga fii moom ku nekk xam nga ne xale moom dafa bëgg géej même ak fooy munti dem nga dem géej bu mun a bu assuré bu dëgg comme ay Malika Place comme foofu am na ay pare tam booy dem foofu nga xam heure yi ngay dem ndax heure yi ñu fa nekkoon ñoom heure yooyu a baaxul ay deux heures kenn du nekk si géej gi la nag. merci beaucoup. ah ok waaw merci.